projet bu ñuy duppee gazier yaakaar teranga bu nekk ci saint ñoom ñoo ko mooma mu nekk trois groupes yoo xamante dañ ci am ay intérêt te nekk dafa bëgg a lu nga xamante ni moo di moomeelam ci mbirum gaz bi BP am ci 60 pour cent Cosmos Énergie 30 Petrosen bi nga xamante ne état Sénégal la teewal 10 pour cent wante fan yi ñu weesu lu ñu nemmeeku moom mooy British Petroleum dafa joxe li nga xamante ni moo di ay param Cosmos Énergie ne moom moo ko jël am ci 90 pour cent di ci wax Cosmos Énergie ak Petrosen ñoom ñu ngi fexe nu ñu liggéey gën a jëmale kanam seen liggéey am ay jumtuwaay ak ñu xarañ lool mu nekk wax joo xamante ni waa Petrosen ñoom bi ñu ko déggee dañu génnee communiqué bi Netshe ñoom dinañ ci am 34 pour cent Cosmos Energy nekk ci ñaareel bi place bi beneen part bi nag ñu jox ko keneen koo xamante ni kenn xamagu ko ci gaz boo xamante ni dañ ko war a exploité début 2024. jàpp naa ca njëlbeen. que ñu Sénégal pareegul pour dugg ci économie pétrole gaz. fii ci L'ex Africa ñoom mbirum gaz ak mbirum pétrole dañ koy saytu ñu ni fokk rek ñu xoolaat li di contrat yi. xëy na ñoom dañoo bëgg a ànd waxtaan am seen stratégie bopp pour wut beneen partenaire parce que ñoom ñaareel duñ ko mën a dékku. Mhm. te tamit fexe ba bu ñu wut loolu Sénégal gën a am doole ak taxawaay. ndaxte dara leeru ci. droit de cession yi am. Mhm. diggante BP ak Cosmos. wala Cosmos ak beneen euh, partenaire bu ñëw loolu aussi parce que am na quand ay taxes yu ñu fay ci loolu. Mhm. est-ce que foofu am na lu ñu si yaakaar et donc bi nga xamante ni nag Cosmos Energy wax na am na 90 pour cent ci part yi état Sénégal moom am na droit intervenir joxe ci xalaatam wante seet seetlu gi mooy boobu ba léegi daf ci noppi.